abonné leen ci suñu chaîne YouTube ngir door su nekk ay xibaar yu wér te mi ak ci bitim na ngay piis ak waaye tam di charme ña nga xam ne ñoo néew doole fi mu ne ci réewum Sénégal las yéen kaay moom ko xamal xamal na ne bourse familiale yi moom Sall day nee na leen léegi juróom-ñaari junni ngeen di laal bàjjenu gox yi président Macky Sall yokk leen leen doon fay par weer rax ci dolli juróom-ñaar fukk ak juróom-ñeent ci association la association bu ne président Macky Sall nee na la dabb benn million le soleil yéen kaay ne ma président Macky Sall kay prime ba nga doon na leen ko jébbal juróomi junni la woon suliet bu jotee lu toll ci juróom-ñeenti junni téeméer ak fanweer ak juróom benn ci bàjjenu gox yoo xam ne ñoo nekk ci quartier yi sofantikoo ci réewum Sénégal Le Soleil yéen ni leen dootul juróomi junni waaye léegi président Macky Sall nee na leen fukki junni ngeen di laal fayallaahu tribune yéen kaay naan leen yéen a ngi rafetal di raay raayal de waaye dëgg ji moom moo di moom président makki sàll juróomi téeméeri million la daal di génnee daanaka ab ger la rek ger ngir nag charme daal rogo jeeru ak di piis bàjjenu gox yi nga xam ne ñoo nekk ci réewum Sénégal tribune naan maan waaye lu wax ji bari bari jàpp leen ni Sénégal ne dafa daal di jaxasoo lëmbaajoo réew mi lëj ba mel ni wëñ mel ni ku tëb dal cib xal dese la beneen tëb yéeni kaay bi dee média bi ne ma tegal fii sa baaraam ma xamal la ne yeewi askan wi fi mu ne ña ngay menacé Khalifa Babacar Sall naan kon yónniw nu kenn ca dialogue ba du sunub tur du sunub sant ku fa dem boo moytul te bokk ci ñun dàq daal dina la ñeel suñu biir wala yéeni kaay bi dee média bi naan maan boo moytul Khalifa Babacar Sall ak waa taxaw waaye yeewi askan wi dinañ leen ni ale dàq leen critique yéeni naan kon dàq nañ ko ba pare kay xanaa ñu ne ko demal moo ci PDS waaye waaye yeewi askan wi seen communiqué ak bi xalifa sax bu ko déggee war a xam ne nag dàq nan ko source aane ko dee ñoom kay waaye yeewi nag dañoo mel ni kuy wax ak xale xalifa defal lu ñu bëgg daal di des si ñun defoo lu ñu bëgg nag sa yëre ci bitti nga koy fekk turbine ne ko mooy menace bi kay nee ñu ko boo moytuwul daañu la dàq ci suñu biir l'info yéene kaay ne ma dialogue politique bi loo ci manti déggit am na ay galgal ak les waxul yoo xam ni ma nga ca biir njiital commission bi ba nii kenn xamagu ko fukki poñ ak juróom moo tënkoon terme de référence yi léegi ak ñett la bokk na ci candidature bu président Macky Sall ñetteel bi mandat bi vox populi naan kon loolu jur na teesante diggante France ak Sénégal l'info ne ko ma ñëw may ma ma yëgg li wax ci li ñuy dialogué ci réew mi warees na waxtaanee soppi ni soppi article L29 L30 ak L50 bu code électoral bi warees na ci waxtaanee Karim Meïssa Wade Khalifa Babacar Sall nees def ba ñu bokkati ci élection ci réew mi warees na fa waxtaanee parrainage warees na fa waxtaanee bulletin unique warees na fa waxtaanee nag nees def ba àttewaat Karim Meïssa Wade ci mim réew yéene kaay bi naan man ni ki ëllëg la liggéey di dooraat le moo yéene kaay ne ko dooraat bu neex waaye ndax nag la nga xam ni moo soxal dialogue politique bi waxtaan nañ ci ba juboo am ci seen biir suba daañu xool nees ko tënkee ngir jébbal ko sàll ngaari lam tooro buur gede mu doxal lanket naan koon ak lu mën a am bu leen fàtte ni moom président Macky Sall day ma ngay waajal yeesal na am ay ministre yu yees war a soobu ni saraax ci biir gouvernement gi l'observateur naan koon président Macky Sall kay li mu bëgg def ci réew mi xam ngeen ko état de droit bëgg teg ci réew mi waaye nag sàll fi mu ne ña ngi koy jokkoor maa jor jokkoor leen fu ne ci réew mi bëgg na dal stabilité am ci réew mi waaye ca weneen wàllu wa sàll daal bëgg na doxal dogal yin jël ci réew mi ñu xool nag nees def ba daal di koy taxawal l'express naan man Ousmane Sonko day ma ngay wut plan B ngir waa Pastef woolu na ña nga xam ni ñoo ko gën a jege moom Ousmane naan leen xool leen beneen plan boo xam ne daa ngeen mën a am beneen candidat bu dul man bu nekkee sàll moom fa mu tëyee ci man bawul waa Pastef naan ko déet yaay sunu plan A yaay sunu plan B Ousmane naan leen daan nan ma ci Mame bay Niang daan ma ci suite boutique yi tée na xool plan B yéeni kaay bi naan man terewul waa Pastef dañoo lànk de ne ko Pastef benn candidat la am te usu yawa turbine yéeni kaay ne Doudou Ka ma nga xam ne dañ ko doon jiiñ lonkoo mbagg ak Ousmane Sonko moom Doudou day ma ngay weddi tuuma naan xam nga Ousmane Sonko la ma jotaleeg moom dafa bëri benn bi moom moo di bokkuñu xalaat ci wàllu politique bokk nu ñuy doxalee ci wàllu politique man ak Ousmane Sonko gëjee nañu ca politique ca Adama ak Awa bi moom moo di sigi nga xam ne moom laa bëgg di ko ndamoo Ousmane Sonko sopp soppi ko ci anam woo xam ne bëgguma ko daal caxat-caxatee sigi coor soppi xar kanama duudu naan waaye dara rek dee su ko bàyyee sigi coor de te naan la ma jotaleeg moom bokk na ci wàllu njaboot am nag féewaloo diggante sunu njaboot la ma jotaleeg moom bokk na ci boddi kontey xeet ndax fi mu ne dafa tàmbalee nag wax yoo xam ne ay waxu kasaw-kasaw la ci wàllu pël te duma ko nangu naan kii ma joteel yii yëpp te lii lépp a féewale nu naka laa mën a ànd ak moom waxtu wii lañ war a def moom moo di daal di booloo doon benn waaye féewaloo suñu biir ñoo séq kàngam Benno Bokk Yaakaar yi lii du dëgg du yoon Dakar Times naan maan Yaya Jammeh day moo soobu ci xeexuk senegal gi fekk géer goo xam ni du géeram geeru jàmbur la mu dugal ca loxoom waaye Dakar Times naan maan Yaya ko nar a réccu walla fas nañ ko yéene atte nag te états dugal na loxoom ci koppar gu bari bari ngir Yaya jàmm nag ñu daal di koy atte Guinée équatoriale ba mu daw làqu Yaya nee nañ ko nañ ko attee foofu lu ko mën ñu foqartee ko ci loxol ñoo ñee yóbbu Gambie atte Direct News ci junnig numéro am tey jii naan réewum nañu boole taskatu xibaar yi nañu del exemple ci lii di boole ndax réew mi tollu na foo xam ne ku wax wax joo xam ne du waxuk boole waxoo wax joo xam ne xol yi day daal di dal ndax fi mu ne mi ngi fët fët yi wax wax joo xam ne jàmm ak stabilité day am ci réew mi war nga la nga xam ne jàngaloon nan la ko ci tasum xibaar war nga ña nga xam ne ñoo fi jiitu woon di setal métier bi Pape Diogoy fay ci yéene kaay bi naan xalima dafa war a boole xalima ta tàqale xalima warta yee fitna te xalima nag war warta boole ay doomu askanam ñuy xeexoo ci seenu biir turbine yéene kaay mel ni ku naan koon ma ne la fu tooñ xëyee ndax jàmm dana fa gontu reporter sans frontière de nee Sénégal fi ne tasum xibaar ci boppam ñoom ñëpp ñoo nekk ci menace ñi ngi tëj télévision ñi ngi tëj ci kaso taskatu xibaar yi yor yor naan bu leen fàtte Serigne Saliou Gueye ñaar fukki fan ak ñaar a ngi ñu làq ko jant bi Vox Populi naan ma la neex ay député yi France ñooy naqar lu am ci réewum Sénégal Manuel Bompard Hendrik Devy Sébastien Delogu ñooy naqar lu ñetteel bi mandat bi nga xam ne président Macky Sall daf ko bëgg def par force ci réew mi naqar adversaire am ci langu politique gi moom président Macky Sall na mu dugalee loxoom ci ni yoon di doxee ci réewum Sénégal maître Omar Youm Abdoulaye Wilane ak Abdou Mbow naan leen yem leen ci kuddu ñu roof leen ci gayet xam leen seen bopp am ngeen lu leen doy cax ak jara ci France googee yéen atte nañ fi dossier Fillon atte fi Sarkozy ak Tapie da ngeen caa wax gilet jaune yaa ngi bëgg tukkal France da ngeen caa wax su ngeen amee lenn loo xam ne da ngeen koy wax yemale leen ko ci seen réew mi nga xam ne fi mu ne moo ëpp fitna Sénégal l'observateur naan kon Sénégal kay dara du fi ña nga xam ñoo taal